mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah dellu nañu di leen yi nuyu ñu ngi leen di dalal jàmm di leen dalal jàmm ci suñu concept bu bees ak ci làmb lépp lañuy wax ci wàllu xibaaru làmb muy affiché muy tamit ay xibaar yoo xam ne yëgagu leen ko ñu leen ni koy baaxee fii ci Sénégal lay xewee Pape Maguette Ba Seydina le duo du jour le duo euh, ci actu làmb di nuyu ñëpp war rawatina tamit diaspora bi fu waay nekk rek ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baaxa baax su ma limee damay juum euh, mais kenn moom dama koy beral nuyoo muy Mamadou Ndoye alias Jaguar yàlla na la yàlla may jàmm fa nga nekk ak ñoom ñëpp Mohamed Gueye euh, The King Bombardier du courage ah di ñaanal ñëpp jàmm États-Unis fépp euh, bàyyiwuñu euh, kenn léegi le menu di jour c'est actu lamb tey dañ si ànd ak euh, Seydina xam ngeen ne ñu ngi jëm ci combat bu am solo dimanche incha allah rabbi combat examen la nag combat examen bu doy waar. Euh, combat amateur la muy Tafa Mbër euh, bu nekk foofu ci Rock Énergie léegi fa la nekk Pape mbay seen coach di ko coaché ak ki xam moom mooy Ada Fass nekk ci Fass Benno doomu Fass bi euh, kon demoon nañu ci seen open press ñoom ñaar ñëpp combat boobu Fallou Ndiaye moo ko tëgg njaay production tuddee ko jeu technique jeu technique félicitation et Fallou Ndiaye tamit ki nga ko tuddee jar na tuddee nee naa la Fallou sa bés bu tuuti moo tax demoon nañu fële nga xamante ni moom mooy ca fekk doomu Fass Benno fekki doomu Fass l'avenir de Fass muy Ada Fass mu defoon open press am kon mbokk yi sans plus tarder dañuy dem seetaani open press Ada Fass ñu xool ambiance ak lan la wax combat parce que combat bi dafa am fu ñu bëgg a yóbbu ñu war a yóbbu te si kattanu yàlla aada dina bëree ba daan incha allah ñun ñu jëm foofu bët teguñu ko fii. ko si dafa mbër yàlla rek mu tiim. moo leen ko bët. waaw roi des arènes lañ bëgg am. balaa ngeen teg seen bët feneen ngeen teg ko ci dafa mbër ba pare génn leen ci ban ba pare. waaw dëgg la xam nga dafa lu am fii tey Fass bu ñu commencé ba léegi musuñu fi dugal roi des arènes te Fass def nañ fi lu ne si làmb ñun roi des moo tax ñu rey si tigre rek ngeen am de. ay tigre rek ak ay lion dafa doy mais roi bi lañ bëgg jël. da nga am pression de. non amuñu pression barki sëñ Bamba musuñu am pression combat bi ñu ko jàppee boo léegi amuñu pression. ñu koy waaj di entraîné dans Falaran barki sëñ Bamba mais fii la yàlla dogal fii sa waay fii la barki sëñ Bamba sa waay tey. mais bi joxu barki sëñ Bamba Tapha Mbeur mi ngi soog am combat mi ngi soog am combat si kii tey lay bàyyi bëre Ada Fass mere trop ndaxte li ñu fa gis doy na waar lool lool lool su beneen yoonatee euh, nee naa euh, mbër boo xam dafa am avenir ci làmb il faut mu am encadrement boo xam dañ koy teg ci yoon waaye tamit il faut mu am ay nit yoo xamante ni dañ koy bañal euh, ngir yoonam daal di am gàkk-gàkk mu am lu ñuul tache noire la ñuy bañ mais am nga avenir mais xoolaatal tuuti rek sa sa sa entourage xoolaatal tamit ni ngay organiser woo ngir journaliste bu ñu ñëwee. mën a nekk ci jàmm waaye itam def open press ba pare nag Ada nga ni nga jël mboy bi dem sa kër ànd ak sa waa kër naan journaliste nañ la fekki sa kër loolu Ada pour lan la pour lan Ada xoolaatal yooyu xoolaatal yooyu parce que ñun dañuy bàyyi suñu job dañuy bàyyi suñu yitte yeneen i programme ñëw ci programme boobu parce que dañ cee bokk te dañ ko war a couvrir Ada Fass kon yooyu dellu yombalal journaliste yi seen liggéey loolu rek lañ doon bëgg a wax jaajëf Seydina man ak Ablaye ñoo demoon foofu ci open press bi mais bu ñu fa jógee jël nañu oto ànd ak Diouf dem ca Parcelles Assainies dem seeti doomu parcelle dem fekk ji waa cent pour cent Parcelles Assainies foofu ca unité 20 ca terrain violence xaw ma terrain boobu lan moo tax ñu tuddee ko terrain violence xaw ma saa yu amee match gañ sa mun nañuy raak xaw ma nu mu demee noonu mais foofu non violence nañ fa gis Tapha Mbeur ànd ak waa Parcelles yëpp ànd ak waa Rock Énergie ñu dem seetaani open press bi naa génn bi lu ko waral tey. waa tey loolu xam nga rek maanaam tey dafa gën parce que dafa gaaw timis mais du dara dafa fekk pare nañ li ñu waroon def yëpp ñu teel a génn def lu ñu war a def dem dugaat suñu ruq di xaar dimanche jot incha allahu rabi ñu ñëw def li ñu war a def yàlla may ñu ndam incha allah ñu ñibbi si parcelle. waaw dafa tey boo xoolee bëre bi nga xam ma nga woon bëre fi nga xam mooy Médina te yóbbu nañ ko arène nationale comme li nga waxoon noonu bëgg nga dellu si waat si comme à ko tey lay xaar gëj laa gis nga loo jógee am fa war a jëm te la ngay assuré say supporters. waa supporters yi ñoom pare nañ. supporters yi pare nañ stade bi ñun amul ñu njëriñ ñun fuñ doon ñun bi ñu dugg si làmb dugg ñëwoon woon pour stade bi làmb la ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si ak jàmm pare na sama adversaire pare na ñun ñëpp ñu ngi def li ñu war a def kon dañuy xaar jours rek yàlla may ñu ndam ñu indi ndam li parfait incha allah. dama laaj sax Amdi Moustapha sa diggante ak Tafa sa diggante ak Ada Fass mu ne seen diggante amu ngeen ab diggante moom moo la mas a laaj yow da ngay dëggal ne Tafa Ada Fass moo la mas di laaj Ada Fass ak ku la yàgg laaj boo dajeeg moom noo ko war a def bi mu duggee ci làmb ba léegi mi ngi may laaj donc loolu noonu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mais nag boo tokkee mbër ba fii da ngay ñëw wane li nga war a wane làmb ji yaakaar naa signature ba wax nañ fa li fa waroon wax instant yi jëf moo des dañ ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bis ba ñu jëf yàlla may ñu ndam incha allah liggéey nga lu la leer ne actuellement fi mu nekk nii bés ba euh, maanaam moom Ada Fass bu ngeen dajee ci wala ngeen dajee si bëre maanaam du yóbbu lu bu arbitre sifflé du yóbbu lu ko neex incha allahu bare nañ ci côté yëpp wax amatul jëf moo am yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Ada Fass incha allahu rabbi mais Tapha euh, bu arbitre sifflé kuy xeex ak kan mooy bëre loolu yëpp bu ñu ci bis ba dina ko xam man pare naa li ma war a pare nee naa la wax ji wax nañ ko ci signature ba li ci des rek mooy bis ba jot wax amatul jëf rek a des uh-huh. eh, eh. Tapha nga dégg Ada démb nee na moo la ëpp doole moo la gën a réew moo la ëpp la gën a dof moom jàkkaarloo xam nga li may koy ñaanal rek mooy wér ak tal ak fekkee ba bis ba parce que làmb ji yaakaar naa ñetti fan moom wax moom wax la quoi lépp lu mu wax ni moo ko ëppale na ko ëppale ba ñu bëri ba pare mais nee la la am moom mooy mooy mooy attaqué mooy koñe mooy duma mooy daal loolu moom la concerné li may def moom bu arbitre sifflé dina ko xam mais lépp lu mu wax rek moom la concerné waaw am na solo lool moo tax ñu fonk ko nii di ñaan yàlla may ñu ndam boo gisee suñu grand Ouza 2 taxawoo ñu nii ça veut dire que combat bi am na solo boo xoolee premier combat bi ma bëri si arène nee la moo ma taxaw moo ma ci dugal moo ma wutal lépp kon tey su ma amaatee combat gis ko sama ginnaaw damay xam ne noo làmb ji am na solo léegi am na solo mais dafa am foo nekkoon muy Grand Médine mbooloo nga jógee fa ñëw Rock Énergie laaj naa léegi Pape Mbaye sa coach mu ne am na yow am na loo xam ne nii def nañ ko ci yow loo xam ne dimanche war na feeñ dafa mbër yan soppeeku la sentir ci yaramam ci côté bëre ci côté xel ci côté dallu par rapport ak bi mu nekkee Grand Médine ak Rock Énergie bi mu nekk tey. waaw damay sant yàlla rek ndax lépp parcelle la lépp ci gétt gi la bokk kon tey dañuy ñaan yàlla Rock Énergie bi ma fa ñëwee taxaw nañ ma taxaw ba nga xam ne ne Pape Mbaye teg na ma coono yu méttee méttee métti bi gën maa bëgg combat bi booy mbër yi du ma limee damay juum. mbër yi nekk si écurie bi teg ma ay coono yu metti ci bis ba incha allahu rabi yàlla nañu si yàlla may ndam bu seddu guy ñu kontaan équipe bi kontaan parcelle kontaan loolu laay ñaan incha allah. voilà léegi dem nañu euh, gis ngeen moo loolu la ñu gis ca Parcelles Assainies ak euh, doomu parcelle di Tafa Mbër mi ngi woo parcelle yëpp gis nañ fa Ndiaga Mari ah euh, Seydina. xar yi tubaarakallah macha allah bien organisé nag bien organisé Tapha Mbeur merci beaucoup félicitations pour li nga yombal presque bi seen liggéey noonu la nee nga da nga war a teel a ñëw teel a pare ñoom ñu dem ñibbi si jàmm ak salaam foofu euh, def nga affaire affaire cerveau dëgg cerveau nga nag booy mais ñoom ñaan yëpp gis nañ ni ñu ngi nekk ci en forme léegi nag dañuy xaar. bés ba balance bi ci ban côté lay féete léegi nag euh, ah ci bés bi rek la ñuy xaar bésu géotechnique Fallou Ndiaye noonu la ñuy def nag dem xooli ki nga xam ne moom mooy le promoteur Serigne Fallou Galas Baye Mbenn ah moom la ñuy dem fekk ji incha allah rabbi xam ngeen ne combat bi dañ si am tuuti rek ab tiitaange ndaxte ñaari mbër yi dañu am ginnaaw moo tax Fallou Ndiaye jël combat bi yóbbu ko fële ci arène nationale Fallou Ndiaye noonu la ah t'as bien réfléchi xalaat nga bu baax a baax a baax. kon noonu la mais léegi la promoteur la dem fekk ji Seyna ñu woo Fallou Ndiaye ñu wax ci bés boobu. waaw kon mbokk yi comme ni ma leen ko waxee seetaan nañu ñaari open press yi Ada Fass dem nañ fekk ko Fass waa Fass Benno yëpp génn macha allah mais tamit dem nañ ca parcel fekk fa doomu parcelle euh, ca unité 20 di euh, Tafa Mbër euh, nee bés bi du bés bu ndaw. bésu jeunesse la ñaari mbër yëpp dañoo am avenir ci làmb mais kenn ki nga xamante ni moom itamit moo ko tëgg dafa am avenir ci làmb def na ay preuve am ba noppi mais mi ngi ci yoon bi mais keneen ki nga xam tamit dafa am avenir ci làmb te dafa def làmb dara génn ci làmb mais loxoom mu ngi ci làmb ba tey muy jeu technique kon techniquement kii di promoteur bi techniquement la monté combat bi techniquement la ko tuddee nit techniquement tamit mu jëlaat combat bi xam ne combat bii nii ah kenn war ko yóbbu Iba Mar Diop arène nationale rek la xaj mu yóbbu ko arène nationale di euh, sëñ Fallou Galas Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi lay seetaan ci Sénégal. Ah, Maguette maa ngi lay yi. Mhm. di yi surtout diaspora bi. Mhm. bépp sénégalais nekk wala sénégalaise. di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi. Mm. di la nuyu bu baax Pape Maguette. Mm. ne euh, yaakaar naa wax nga wax ji. Mm. li am solo mooy dimanche bisu jeunesse bi la. dimanche bisu ndaw ñi la. ndax boo xoolee ñu organisé événement bi ay jeunes lañu euh, parrain bi ñu ko tuddee jeune la ñaari mbër ñu ko tuddee bokk na ci yi gën a nekk jeune ci bokk nañ ci jeune populaire yi gën a nekk jeune gën a populaire ci làmb kon yaakaar naa bisu jeunesse bi la bisu ndaw ñi la. taw yaakaar naa wone na ko tamit ci bis yi nga xam ne ni mooy seen dernier bis yi ñuy rencontre presse bi mooy seen bonne presse yi ñu ngi def boo demee terrain bi Pape Tapha Mbeur nekkoon dafa fees boo demee terrain bi Ada Fass nekkoon dafa fees moo lay won ne gox yaakaar na leen seen gox fonk na leen seen gox gëm na leen te am nañ yaqin ne noonu la ñuy ñëwee incha allahu rabbi arène nationale dimanche muy événement boo xamante ne nii dañ ci gis lu ne nag ndax dañoo dem jëli innovation ci wàllu li nga xam te ni mooy bëggal amateur ndax amateur tey il faut ñuy def loo xam ne a satisfaire il faut ñuy def loo xam ne seen xol na seet dañ bëgg bu baax a baax ndax nag ñun foofu la ñuy xaar tey dañoo nekk ci yeneen loo xamante ne nii liggéey la boo xamante ni buñ ko génnee Sénégalais yi nañ ne ah ñi kat gis nañ ne seen label bii tey bu ñëwee yàggul waaye ñu ngi def ay performance ndax loolu moo ñu fi bàyyi te loolu moo ñu tax a jóg mhm. moo tax dugg nañ dimanche képp ku ñëw di nga gis innovation di nga gis si nga xamante ni day neexal lamb lépp luy dara lamb nañ ko gis mhm. incha allah rabbi arène solo waaw li ma lay bëgg a laaj rek combat bi dafa mel ni kii bii mooy troisième année bi am na trois muy combat boo xam ne dafa bëri coow lool lool lool ndaxte ñaari mbër yi wax naa ko sànq dañu am avenir crème làmb la am nañ fu ñu jëm nga tëgg combat examen mais Fallou dama lay laaj combat bi est-ce que xawul diis si yow maanaam nu mu ni mu amee coow daanaka sax miin nga làmb mais bii moo ci rawate waaw loolu moom am na Pape Maguette. Hmm. mais nag combat bi diis si ñun ndax boo xoolee bii la Covid moo ñu fi bàyyi woon Covid moo fi bàyyi li ñu koy rapporté yëpp Covid moo tax ñu koy rapporté. effectivement. gis nañ ne bi ñëwee Covid bi ñëw na comme Covid bi ñëw na dañu ñëpp dañoo a toog ñu ne nañ def comme yaakaar naa bi Covid bi jeexee nañ ci njëkk a jël ndax boo xoolee bi mooy yaakaar naa loolu tamit lu mais mais Fallou mais Fallou doguma la dafa mel ni Covid bi sax li mu ko téye dafa mel ni dafa gën a yokk promotion combat bi. waaw loolu moom bokk na ci li yokk coow li bokk na ci li yokk engouement bi ndax xale yi bu fàtte ne par magal fa dajale nañ leen fa signature contrat ba mës sa sotti dëgg la yàlla ngi koy doog a dogal bu mujj bi ñu mujjee def mu àndu te boobu dañ ci wax ak ñoom fexe jël disposition yoo xam te nii fexe nañ ma ñaari bu na ba phase à phase loolu benn muy événement boo xamante ni tey nit ñaa ngi koy dippee Modou Lo Balla Gaye rek te am nañu yàq it am nañu yaakaar ne mooy Modou Lo Balla Gaye wala moom noonu lay melaat. Mm-hmm. ndax ci dayoo ñaari mbëri la ci dayoo gox yi dëkk la ci dayoo ñi ànd ak ñoom la ndax ñi ànd ak ñoom tamit ni ñu gëmee mbëri dafa ëpp te loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy làmb te combat déclenchement la te combat déclenchement la te combat déclenchement la moo tax jël nañ disposition yi yooyu jël yëpp ci côté sécurité ba nga xam ne nii ci kàttanu yàlla sax nañ bëgg sécurité boo xam ne nii incha allah wala bañ sax du ko yëngu ci kàttanu yàlla mm-hmm. ndax lépp rek bëgg làmb ji mën a àgg ci jàmm mu bëri mën a bëri ci jàmm ndax pour xool ne euh, Mor Kang Kang boo yëmbal ci biir te comme combat ma doon waaw arme bu ngeen ay kil ñu ngi ci biir ay yenn espoir yoo xam ñëwee arène nationale di ngeen si combat lu neex ñaareel bi mooy dañ fexe mbër yëpp dañ leen sagal ci biir bis hmm. mbër yëpp defar nañ tey juróom benn coupe yoo xamante ni pour ñetti grand combat yi la. Ah. defar nañ tamit. 17 coupes yoo xamante ni pour mbëru ndaw yëpp la dafa leen ay ay ay ay vraiment ay ay ay allah koo xamante ni mhm. participer nga loo yóbbaale loo xam ne trophée lay nekk trophée boo la soulagé la jox xalaat boobu noonu journée espoir yi nga dajee espoir yi nga xam ne ku sa moroom daan rek da ngay da ngay da ngay da ngay découragé moo tax nga bëgg a seral seen xol mais la la moo faral waral nga def loolu innovation la ah de taille. <laughs> waaw innovation la mais xam nga tey dañ ko tuddee benn professeur ndax boo xoolee moo kankan boo yëmbal ko tuddee suñu benn professeur bi ñuy wax professeur Pam Ndour hmm. professeur Pam Ndour ku ne xam ne ci éducation la nekk ci jàngale jàngale nag buñ ko waxee mooy ñoom ñooy borom xel yu sell yi ndax yaakaar naa ko doxal. ñooñu ñoo la ñooñu ñooñu indaale innovation yooyu yokkal ñu jaay production pour accompagner la vie nga xam ne lamb yi def yëpp dañuy ànd ak kon yaakaar naa loolu innovation tailleur dafa sàmm ci lamb te yooyu yëpp incha allah nañ ko xaar nañ gis ne ay ay professeur ñoo toog ay nit ñoo toog yoo xam ne ñu xool bër bi dàqatul da ngay am da ngay am décoration bër bi dàqatul da ngay am mbër mi nga xam ne moo gën a respecté engagement yëpp suñu ak CNG da ngay am décoration mhm. mbër mi gën a fair play dafay am décoration yi mhm. kon yaakaar na dimanche nañ gis innovation de taille allah kon Fallou xam naa li ñuy tàggatoo rek innovation yi maa ngi la ciy félicité bu baax a baax ça veut que label bi màgg na su ma nee label bi màgg na ça veut que ci ay innovation ci ay xalaat ak nit yi nga xamante ni yaa ngi def si ñoom ay choix lu mel ni kii borom xam-xam koo xam ne mooy jàngal gone yi mooy jàngal nit ñi nga ñëw tuddee ko lu mel ni loolu xam nga koo xaaroo ci moom dara du dul sagal ko ci bés boobu noonu kon foofu noonu maa ngi la maa ngi la ci encourage bu baax di la félicé si xalaat boobu nga xam ni xalaat bu am solo la mais li may tàggatoo ak xam nga lan la. keroog ñetti pièces yi nga sol ci face faas face ba Bantamba TV muy costume beeg gilet bi <laughs> loolu moom loolu moom bëgg naa nga defalee ma ko rafet na trop fan nga solo yow fan nga solo xanaa états la jóge wala Angleterre. waaw loolu tamit du xëy nag ah. dëgg yàlla moom moo fa jaar ne ma yow moom maa lay solal ci bis bi vraiment def habillement bu rafet wax dëgg yàlla habillé ñu kaw kon kooku Ndiaye production la bokk na ñëw bokk ci Sénégal nag di solal di solal Pape Maguette Ba. ak ku mel ni Fallou Kapo ñooñu na yàlla ñoom ñoo seede loolu bu jeex na sëñ Fallou sëñ Fallou maa ngi lay gërëm bu baax a baax xam naa rendez-vous dimanche incha allahu rabbi merci jërëjëf kontaan jaajëf jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom sëñ Fallou euh, fàllu Ndiaye Ndiaye production. moom lañ doon waxal noonu euh, gis ngeen dégg ngeen li mu wax innovation yi jeunes yi fay bëri yëpp ay espoir ñoo fay bëri nag combat yëpp ay combat déclenchement la Mor Kankang dina fa bëri ak ñeneen ak ñeneen gis ngeen professeur bi mu tuddee euh, le combat spécial géotechnique euh, le grand combat géotechnique yow war nañu daje man ak yow ak Seydina incha allahu rabbi parce que yow am na lu ñu war a waxtaan lu bari bari bëri géotechnique ñu ngi koy félicité tamit ci loolu di félicité ñëpp fa waa Njaay production yëpp ñu ngi leen di euh, euh, jaajëfal bu baax a baax a baax mais kooku la woon Fallou Ndiaye kon xam naa dimanche incha allah rabbi ci bés bu rëy boobu. voilà kon mbokk yi ni ma leen ko doon waxee ah tey dañuy am euh, benn benn gan mooy appel surprise appel surprise ci rubrique yi la bokk ah pareegu ñu de man ak Seydina am na yeneen i. Euh, yeneen i camlangal yeneen i galgal yoo xamante ni euh, dañuy dañuy dugg maa ngi woote appel surprise xaar leen ma moo appel surprise voilà voilà salaamaaleykum. maaleykum salaam. na def. waaw maa ngi ana waa Réfane. Ah, ana waa Box bu Box. ana waa Réew Maao. <laughs> waa réew maa ma miin foofu mbay guy gi moom lañu am noonu en direct doomu Réfane ah, ah rakku Tafatine ah frère Wulli ah Wulli numéro 2 ñoom ñëpp euh, frère euh, nu mu tudd Nokia ah Kewel euh, Jarbaatu Bada Jon ah, ñoom ñëpp ak ak ak kii nu mu tuddati waaye Zallo. daal. Euh, ndeysaan ak ak ngeen a bëri champion mais li ma jaaxal si yéen mosu nekk roi des arènes. waaw mais loolu yëpp tañ na seen i doom ñëw nañ. te defe naa ci kattanu yàlla bu dee loolu rek incha allahu rabi roi des arènes dina fa ñëw incha allah. voilà Mbaye Gouye comment tu vas. waaw maa ngi sant bu baax Pape mbay Mbaye Gouye Gui je t'ai dit je je, je t'ai salué en français comment tu vas. non français un peu rek. waaw comment tu vas. waaw ça va bien. ah et, et la oui. famille ça se passe waaw nice nice cool lépp jàmm. non il faut il faut répondre en français toi aussi. il faut. il fo répondre en français. il faut répondre en français mais mais Pape Maguette nag français bi tuuti tuuti rek. aja waxal ma et la famille tout va bien. et la famille tout va bien. oui. Ah, allo. comment ça se passe la journée. waaw sant. ah yow daal tontu bi mooy sa problème quoi. waaw non waxuma fi français mbër de yow boo xamul da wax loo xam li nga xam rek. <laughs> alors muy information bi nga xamante ni mbokk yi euh, foog naa ne yëgu ko mbay guy gi jox nañ ko sarko waa Rent Dakar ñoom ñoo ko tëgg félicitations à Jumbo Nokos et félicitations aussi à Alain mon frère depuis la France waaw mais mbay guy lan moo la dugal ci Zarko loolu laa bëgg laaj. waaw Pape Maguette dama lay nuyuwaat di nuyu ñi nekkal ci plateau bi. Hmm. di la wax ñu ngi sant yàlla jur si yoon bi gërëm suñu ñaari waajur. Mm. gërëm Bawal fa nu dëkk muy Réfane susuma fa ma dëkk Réfane boox mm. gërëm sama sëriñ sañ Tafa Diouf borom boox ak Njaañ di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb. jaajëf waay. maa ngi yu Medina fi ma dëkk yëpp. maa ngi mm. nuyu waa Medina yëpp. Fass Gueule Tapée Colobane Bentali. maa ngi nuyu ñëpp ak waa Grand Yoff ak waa Grand Yoff nuyul waa waaw Grand maa ngi yëpp maa fa ëpp may bëreet ay supporter Zarko ah, li ma dugal ci moom grand frère la jiituñu ci làmb mhm. def fi loo xam ne defuñu ko yàlla suñu borom def ñu toog suñ combat mu taxaw mu nangu ñoo may saas ñu koy encouragé ci lool mais dama dégg nga naan ko paa dama dégg nga naan ko paa non max dëgg mag la parce que man quatre-vingt-quinze laa juddu te Sarko defe naa moo moonu mag. moo la mag foofu moom. waaw kay moo tax ma ne ko paa nga rek mais loolu du dara dama koy wax pour tooñ ko. nii rek ah mbaa xeeboo paa rek mbaa xeeboo ko rek. non ñun dootuñu xeeb ba nu mosee defet lañ bàyyi xeeb kenn. jeex na. waaw mais bi daal ñu ngi bu aj jël nañ avance am te ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo yor ndam mu may ñu ndam. te dinañu may ndam. mais dama gis seen seen premier face to face mu tàng trop ba ngeen waaj a xeex. Ah ah. la lu waral loolu da sa sa yaram da ko laaj wala combat bi. da nga koy yëg non dama yëg combat bi quoi parce que moom toog na fu ne di wax ci man lu ne. Mhm. maa ngi nuyuwaale sama papa Abdou Aziz Alé Ndiaye. Aziz Ndiaye ginnaaw yàlla bu combat bi taxawee. tey moom la moo moo wax nga daf la woo rek ne la combat bi na. nga dal bi taxaw na rek ma jël avance. bi quoi man aw ma mooy sama papa mooy sama lépp. dëgg la dëgg la. sama papa Dieye Sène. waaw Dieye maa ngi koy nuyu au ak Aziz mais nag. Mm. sa combat bi sama yaram ma ko laaj. parce que nee nañ ma yaa ngi door a am combat loolu moo tax ma sawar quoi. am nga bés de. waaw am naa bés. yaa ngi da daanaan gaynde. ndaanaan loolu dinaa ko wan ne bu baax. xam nga lan laa koy wax. Ah. dama naan ko yow jikkooy bëy nga yor rek du dara. bëy moom xam nga nangut a dégg ndigal nangut a topp ci ginnaaw kenn. te bëy day ñammi ñammi rek. day ñammi ñammi fu ne ñun nag jikkooy xar la nu yor dañuy dégg ndigal di toppee luñ ñu wax ñu def ko mais moom. jikkooy bëy la yor nee na topp ci ginnaaw kenn. nee na la danga nga ñam de nee na fu mu fu mu la ko teg. ci bakkan lay daal. non déggoo li ma na foog dóor la mu daal. non mënumaa dóor Sarko moom kaña gu génn guddi la rek day telli telli xamul fu mu jëm dégg <laughs> waaw waaw. moom dañ koy daan ba ñibbi te du yëg lu xew moom après lay comprendre. saay dina la mbëkk de ngalam boobu nga woon ngay wax noonu. dina la mbëkk de day mbëkke day mbëkke day matte yooyu yëpp Malick Ngom arbitre moom dinaa ko teel a wax mu teel cee jëli matukaayam. <laughs> Eh. dégg naa dégg naa nga naan ko sama yaay man rek la am góor. Ah, dimbali ma rek waaw mais koy wax lu leer que bu toogee naa man di wax yeneen wax naa man lii la bu arbitre bi sifflee nga daw loolu la wax bu arbitre bi sifflee ah, ma ne ko boo doonul leneen lu dul nit mën naa daw bala fa kat parce que man it xaw ma dara nag man na noo soufflé fii mu soppeeku mën naa daw bàyyi ko moom kay na doon mbër rek doon nit non non soppeeku moom du def du ko def soppaliku moom du ko ah, def ah man naa ne nag parce que ñëpp yamuñu nag ah déet sama kat di jërëf jërëf foo mësee gis mbër buy soppaliku sekki ah, daal xam nañ ko mais soppaliku moom amul ci laa mujj non bëri fi nag am na mbër yoo xam ne mooy lool de man def na nee naa ko dimbali ma rek. bëri nga ak mbër bu soppaliku yow wala nga gis mbër bu soppaliku. non dama ne am na fi gaa yoo xam ne wuuf bëri ñoom tey dara jaru ko <laughs> da ngay pare di xeex guddi jeeg yëpp loolu laay bañ nag. moo tax ma teel koo wax. waaw <laughs> dimbali ma rek. waaw dimbali ma dara xajut ci man mais daal combat la comme combat yëpp yi doon jël mm. mais ak kii moom da cee raw defe naa ne ñu ngi déglu suñ papa Aziz Ndiaye lépp lu mu ñu wax rek ni la ñuy entraîné bu jaree ñu génn dem entraîné ñu jar ñun bu nee ñu dem leen ñu dem bu nee ñu toog leen ñu toog ñu ngi koy déglu daal lépp moom la daal incha allah waaw ñu ngi toog di ko déglu jaay mbay guy gi kon naan naa ah? jërëjëf mais na sa xel dal na sa xel dal du soppeeku dégg kon baax na jërëjëf jaajëf xewal kon mbay Gouy ji lañu amoon noonu en direct fi nga xam ni moom mooy euh, ci seen euh, émission euh, invité surprise ah invité surprise mi ngi noonu mbay Gouy Gui xaw na maa rey reetaan naa bay bay jooy kon mook Zarko taxaw na joxe ñu li nga xam ne moom mooy dat bi parce que waa rent pare ñu mais ay xibaar rek yu yu gaaw rek Mohamed Ndao Tyson borom bul faale nee dina dellu siwaat ci làmb ji ndaw Ndao Tyson moo ko wax de neen day dellu siwaat incha allah rabbi ci làmb ji Ama Baldé Modou Lo le 17 mars la ni Nicolas jàppaat dàq nañ ko dàqaat mais Abdou baaxum di manager euh, Ama Baldé moom nee na le 13 mars boobu wala bokk le 17 mars xaw ma la mois de mois de mars daal nee seen ngañ newu ci nañ leen ci këccëj bëriwuñ mars bëriwaatuñu mars nee na ñoom le 25 décembre la seen contrat yem bu jeexee ku ne nu mu xam fu mu xam jaar fa mais neen daal ñoom bëriwuñu tey mars bëriwuñu ëllëg mars am na sax lu ñuy tuumaal Luc Nicolaï ak Modou naa ko bàyyee gaay double moteur quench le 7 novembre incha allahu rabbi Baba jaw moo ko tëgg boobu deen si ñëwaat incha allah guy gi rëg-rëg le 2 janvier 2022 euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko tëgg moom mooy euh, waa entertainment euh, Sénégal entertainment entertainment anglais entertainment noonu lañ ko waxee baax na entertainment sëy naa dafa bëgg ma ngay prononcer en anglais man nàmp ma anglais olof laa nàmp Sénégal entertainment moo tëgg euh, diggante guy gi ak rëg-rëg euh, le 2 janvier 2022 incha allah rabbi Maawo Cissé moo ko jiitee nee nañu sax Maawo Cissé boobu mi ngi dox ci benn combat bu rëy laaj ma kan la Seydina laaj ma kan la la lakkantaan de suma jun mooy kan koo koy doomu bay kayre jén kayre ak kan doomu Grand Médine Yékini Junior actuellement mi ngi États-Unis ñu ngi dox combat boobu Diène Kaïré ak Yékini Junior incha allah rabbi Sénégal entertainment ñoo ko tëgg Mawo Cissé moom mooy dox combat boobu moo tëgg guy gi ak Reug Reug kon loolu la woon ak ci lamb gis ngeen promoteur bi dégg ngeen ko Open Press Ada Fass Tapha Mbeur dimanche la bés bi incha allah rabbi la journée des espoirs de l'arène waaw ki nga tëgg espoir la mbëri espoir la ñu mooy dis ki nga ko tuddee espoir la jeu technique dugg na ci la am ba génn ci mais loxoom mi ngi ci la am ba tey léegi nag mi ngi noonu invité surprise ah mi ngi noonu euh, guy gi mbay guy gi la woon diggante moom Zarko taxaw na Rent ndakaar ñoo ko tëgg di nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp lii di ngeen ko am chaque vendredi incha allahu rabbi man ak Seydina du sedd euh, nee naa leen maa ngi leen di bàyyi ngeen di rek Seydina baa ma ma dem baa ma ma dem takkaat samay jaaj takk laapataak yi door mu wàcc. Eh, Mawdo jiine lam abide rabbi na sofe